ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Kono Gambien numéro 2 Kono Gambien numéro 2 Kono sànni na léegi waaye dalul Gambien 2 jiital tànku càmmoñ Kono jiital tànku càmmoñ ah fii moom xeex bi Malick war naa mën a neex Gambien 2 mooy diriger xam naa ne ñoom ñaar duñu mbëru gàllaaj sa Gambien 2 mi ngi diriger Kona mi ngi def déplacement di mel ni kuy xaw a dellu ginnaaw. Gambie de moom kaddu taw di songu gis na noonu. xale bi dafa reculer waaw mel na ni moo ëpp doole nag. dafa reculer pour bëgg mu ñëw mu jël ko mais Gambie de moo gën a jekk position mi ngi gën a jekkal jàpp bi. jàpp na bu jógee mu baax ba. mi ngi gën a jekkal jàpp bi Gambien numéro 2 Kono. ku ne am nga ngemb. ah ku ne am nga ngemb ne war ngaa mën bëre. attention. Gambien 2 doon na ko jéem a jël pour plaqué ko Kona bañ. Gambien 2 ak Kona. Kona ngi gën a jekkal moom tamit. dafa mel ne Gambie Gambien moo ëpp waaye. dafa mel ni bëre bi des na. waaw ñoom ñaar ñëpp seen bëre xaw na des. waaw. parce que ci jàppante bi nii lu ne mën na ci war a am. ah. jël bu leer war na fa mën a am. mais ñoom ñaar li ñuy jéem benn la mooy ku ne da ngay jéem a xëcc buddi wala nga sempi sa waay alors que leneen war na ci mën a am. waaw bëri war na fi mën a am waaye dafa mel ne ñoom ñaar seen technique dafa des ñuy door pour fi buntal. ah jël na ko plaqué na ko daan ko. ah rafet na Malick. Gambia को ब्लॉक करने को डालने को डाउन वाइट वो ये यो साफ लड़े फोटोग्राफी लुंग लड़े कैमरा मानी खराब कर ले रहे मेरे हाँ वो रंग वाले सिटी के क्यों पीले हम ना कुर्पान भी ये रहे और सवाई लोगों डोरुल मैं किसान दिन को प्लाक के डान को vraiment c'est joli c'est propre c'est indiscutable Abou Triangle Sud. waaw bëre bi ñu xool ralenti bi soog a dem gis nga noonu fam ko jàpp. roof lalli. roof lalli mu